madame Bigué Ba Mbodj ñu ngi lay nuyu. ñu ngi leen di fay. yow yaay njiital kuréel gi nga xamante ne moo ëmb sage femme d'État yi ci Sénégal nga nekkit maîtresse sage femme euh, bëccëg bu tey bi ñu leen ci delloo njukkal ndaxte àdduna wërngal këpp daf ko jagleel euh, ñii di sage femme yi ndax mën nga dikkaat ci solo si nga xamante ne bëccëg bi am na ko ci yéen. jërëjëf doo donc euh, dafa nekk bëccëg bu am solo parce que di dafay tax ñu mën a toogaat def ay lël saytuwaat sunu liggéey saytuwaat sunu liggéey sunu sunu sunu sunu profession lan mooy sage-femme xam lan moo nu war xam nan lan koy war a defee xam nan la ñuy joyantee yenn yi donc thème bi ren jii dañoo bind ni euh, li ñuy tuddee confédération mooy njiit bi euh, mbootaay bi ëmb sage-femme mu àdduna bi yépp at bu nekk ñooy ñooy wax ni ren jii ci li la waxtaan donc waxtaanu ren bi moom mooy les chiffres parlent d'eux-mêmes Euh, investissez dans les sages parce que gis études yi ñuy wane njàngat yi ñu def gëstu yi ñu def dafa wane ni plus sages-femmes di nekk ci biir euh, euh, dispensaires yi ci hôpital yi ca gox-goxaat yi gën a sore plus nit ñi di mën a jigéen ñi di mën a mucc te duñu loru seen doom du ci faat donc loolu moom moo wane ni njëriñ ñu sage-femme ni mu amee solo ci mbir askan wi. Hmm. également ñun sage-femme yi également Sénégal ñu ni ah ñun tam comme ñu ngi wax ci waxu mbas mi léegi nag dañuy toog xool nag nag euh, mbirum wérgu yaramu ndey ak doom bi nga xam ne ñun moom mooy sunu sunu yëfi bopp naka la ci saasaam taxawee ci jamono mbas mi ba nga xamee ni ndeete ndey ak doom du yokku euh, euh, ci diirub diirub diirub loolu donc muy un sous ba nga xam ne moom la ñu choisir ah te di ci kontaan nag parce que luy dafay tax ñuy ñuy mën a toog di saytuwaat suñu bopp parce que euh, euh, lu ñuy wax ni euh, fas lu mu daw daw làbbali da ko da ci baax dana tax ñu toogaat ñi gën a liggéey gën leen a waa góoral la ñi nga xamee ni ñu ngi xaw a tere ni tuuti maanaam ñu ngi des ginnaaw ñu gën leen Euh, kañ ba nga xamee ni dinañ mën a góorgóorlu ndax liggéey bi mën a jaar yoon. Mm. ci atum ren ji naka ngeen ko fas yéene màggalee bëccëg bi. niñ koy màggalee moom mooy ku ne xam na ni mbas maa ngi fii te sage-femme yi macha allah ci biir Sénégal tollu nañu lim bu nga xamee ni ay junni junni sage-femme lañu donc mënuñu ci di dajale ci gox go ci ci période bi ñu nekk jamono yi ñu nekk di dajale ay sage-femme ndax dañuy wax ni digte càngaay yaa cay jiitu. donc comme ñun dañuy wax ni na nit ñi di takk seen masque na nit ñi di di di di di dànnante meetar te bàyyi di dox lu dul farata ndax mbas mi jóg fi donc ñun tamit lii li mu doon farata yépp dañuy xool naka lañ koy defee ci biir mbas mi ba nga xamee ni ah wàll ci biir sàccaam yi wàllante du ci am ci ñu ñuy liggéeyandool wàllante du am ci ñi nga xam ne ci ñoom la ñuy liggéey ba tax na ku nekk da ngay nekk fa nga nekk ñu jaaree la ko ci biir internet bi ñu xëy yendu suba ba ngoon di ci waxtaan ku nekk di wax lan nga ci def lan nga ci mën a def ba nga xamee ni ndeyte ndey ak doom du du yokku ndax mbas mi euh, lan nga ci jël ci sa doole def ka si pour que liggéey bi mën a jaar yoon pour que sage-femme yi gën a mën a taxaw temm pour euh, jàppale jigéen ñi mais également yan jafe-jafe la ci euh, lañ ci dund ndax euh, waxuñu ko sax si nasaraan waaye tasam yu bëri amoon nañu feebaru corona bi ba am na si sax ku si ñàkk bakkanam donc loolu yëpp itam day tax ñu toog waxtaan si xool gën a xool lan la tasam war a mën a taxawee ban gëdd lañu war a jox sage ci biir liggéeyam xam ni moom tamit buñ ko ko joxul jumtukaay yi mu soxla buñ ko ko joxul li ko war a aar bu ko jotul ah dañ koy dañ koy exposé comme nuñ koy waxee ci wolof mais dañuy fexe ba nga xamee ni daal sécurité am ah, du jaar yoon. Mm-hmm. ñu wax tamit ci wàllub tàggatu bi ndaxte ñu bëri dañu koy xëy di ŋañ ban solo la formation am ci sage-femme yi. solo bi moom mooy formation mooy tax nit doon sage mm-hmm. formation nag bu jaar yoon waaye nag Sénégal danoo tollu jamono boo xam ne maanaam l'école yi ni tàggate sage-femme yi bëri na bëri goo xamee ni ah des fois saytu ba ca war mën na am ni amu sax wala néew na ba nga xamee ni ah, ah, xale yi école yaa ngi continuer di di di di former te ñi nga xam ne génn nañ ba pare tamit amaguñu liggéey donc muy ni jafe-jafe bu mag parce que nit ñi dañuy gën a génn di nekk di wërum liggéey jafe-jafe yi gën a gën a gën a gën a metti ba nga xamee ni dafay laaj nag ñu saytu bu baax école yooyu xool ba xam ndax ah, li sart yi mu yi ñu ko yoon tegal ndax matal na ko ba pare tamit fexe ba nga xamee ni ah sage-femme yi nga xam ne buñ leen tàggatee ba pare bu ñu génnee fu leen yóbbu ci réew mi danañ mën a taxaw temm mën a fexe naka la ñuy indee seen Mm, contribution nan la ñuy jàppe ci xeex euh, bi pour wàññi ndeete ndey ak doom. Mm, waaw euh, ndax mën nga ñu defal tamit xayma ci ñaata ñooy tàggatu at mu yàlla sak waaye tamit ñaata la ci état bu Sénégal di jël. waaw xam nga état du Sénégal nag euh, ñun 2014 euh, daal euh, président Macky Sall daf nu defaloon lu rëy jëloon lu juróomi téeméeri sage-femme ba tax na tey jii looloo tax tey gox boo dem di nga fa fekk même bu dee benn sage-femme di nga fa fekk même bu fekkee ne dañu wax ñaar a war a am bara ñett gën ngaa néew di nga fa fekk kenn donc recrutement bi nag dañoo bëggoon ren jii nga xam ne dañu ne jeunes yi te sage-femme yi génn nekk di chômer ah boo ko xaymaa téeméer bu nekk juróom-ñett fukk yi ay xale yu ndaw la yoo xam ne yeggagunu euh, fanweeri at ak juróom ah ñu war leen ci recruter bu baax pour ñu mën a dem nekk ci biir réew mi daal di indi seen contribution parce que jàng ba pare seen waa kër dajale seen ay pueg seen daqaar nga am diplôme nga nekk fii amoo liggéey wala ngay mujj di nekk fenn di fa liggéey dañuy tudde bénévole ñu lay jox ay ay ay ay mm, somme yu ñàkk fayda yoo xamee ni sax des fois dañ rusa wax nit ñi ko dégg naan la dañ lay dellu paas ak wala dañ lay jox ndàmpaay bu nga xamee ni yow mënoo cee lekk mënoo cee naan te fekk na nga nekk ci àll bu sore ndox amul courant amul sore ndey sore baay donc yooyu le jafe-jafe yooyu la sage-femme yi di dund donc at mu ne par exemple am na at mu nga xamee ni daaw junni sa junni élève ñoo doon def examen hmm. te xam nga ne loolu ku nekk xam na ni ah, doy na waar hmm. euh, te junni yooyu tamit buñ ko defee Euh, la cay génn ca examen ba pour am lijaasa ba néew na donc mu indi beneen jafe-jafe nga ak tasum yaakaar bu metti ba tax na nag daal li ñu bëggoon moom mooy ñu fexe ba njàng mi ñu gën ko joyant ba nga xamee ni ñiy génn ah lim bi dina tolloo lu nga xamee ni même bu nu mënul bu état bi jëlul lépp it genn gi dinañ am feneen fu nu mën a dem te ñun tamit ñu ngi xool naka lañ leen di mën a tàggate jàppale leen ba ku nekk ci ñoom même bu dee dañuy dajaloo euh, ñu mën a wut euh, seen seen xëyu bopp hmm. macha allah. ci wàllu wërgu yaram bi ngeen nekk bëri na ay secteurs yi nga xamante ne euh, daanaka ñi cay liggéey ñi cay yëngu Euh, lim bi bëriwul niw na lool euh, ci Sénégal mën nañoo lim sax génico ndax bu yàggul dara moo xew coow li ak ñi ñu war a affecté ndax ci wàllu sage-femme ni lim bi doy na ngir euh, fépp foo dem ci Sénégal nga fekk leen fa. lim bi moom mënta doy lim bi mënta doy ndax euh, li kuréel bi jiite euh, euh, wérgu yaram ci àdduna bi dafa wax ni lii li nga xamee ni moom la ñu soxla pour que ndeete ndey doom wàññeeku bu baax maanaam bëgg jóge ci deux cent trente six moom mooy ñeenti téeméer fanweer ak juróom benn dem ci juróom ñaar fukk nga gis di kii toll al fokk maternité bu gën a ndaw nga man faa am koo xam ne dina def benn accouchement par jour mu am ñetti sage-femme yu fay nekk mais fi nu toll nii sage-femme yi góorgóorlu nañu ci seen bopp ba nga xamee gox goxaat boo dem di nga fa fekk même benn sage-femme waaye nag ñu ci bëri nag kenn recruté wu leen ñu ci bëri ñoo fa demal seen bopp négocier ñu leen di jox ay paas wala nangam euh, te kenn kenn recruté wu leen donc li ñu bëggoon moom mooy que ñu mën leen a jël ñu recruter leen ñu mën a toog ci biir gox yi Euh, liggéey fa mën a jàppale jigéen ñi parce que euh, ni waa jigéenu réew taax soxlaa fajub sage-femme noonu la waa àll ba sox soxlaa fajub sage-femme muy li ñuy tuddee ci nasaraan équité dans les soins. Hmm. waaye li ñuy nemmeeku naka noonu sax ci secteur yu bëri mooy <laughs> ngir ñu yóbbu leen wala ngir ñu yóbbu ñenn ñi ci dëkku taax yi lu jàppee la ndax conditions yi xëy na. ni muy jafe-jafe yëpp laa la wax ni la boo demee Matam fekk fa téeméeri sage-femme ak lu topp. nga dem Ziguinchor fekk fa téeméeri sage-femme ak fanweer nga dem euh, euh, Kolda fekk fa du toll si juróom-ñetti fukki sage-femme nga dem Tambacounda fekk fa téeméer ak du topp amatul léegi gox boo xamee ni di fa dem te doo fa fekk sage-femme yi ñii gouvernement bee leen recruter du si lu néew yóbbu leen mais ni ma la waxoon comité de ñu wax comité de santé bu njëkk ba te léegi ñu koy waaye CDS ñoom ñoo leen jël. Mhm. ñii des fois ONG ñii moo leen jël ñii nguur gi mooy ni muy tuddee contractuel maanaam ñoo xam ne contrat rek lay signé ñoom recruter wu leen te ñoo xam ne depuis juróom-ñetti at ñu ngi contrat boo xam ni toujours dañuy tuddee contrat à. à durée déterminée la ba tey mënuñoo dugg ci biir fonction publique bi. Mhm. donc ngeen gis yooyu jafe-jafe te pourtant saasaan yaa ngi foofu nekk fu amul ndox amul courant mais boo fa demee fekk fa saasaan. Mhm. donc nag li li war moom mooy pour ñu mën a ratio yi OMS jox ñu ñu mën koo respecter dañu war a recruter sage-femme yi euh, jox leen euh, euh, mettre leen ci ay conditions yu baax ndax léegi amatul benn dëkk boo xamee ni sage-femme bañ na faa dem pour mën a. Eh, jàpp ci eh, xeex bi ñuy xeex eh, ndey te ndey ak doom. Mhm. waaw oh, yéen gannaaw yéen a yëngatu ci wàllu kon wér gu yaram ndey ak doom ndax mën nga ñu defal xayma ci soxna yi ñàkk seen bakkan at mu yàlla sàkk bu ñuy muccal. waaw ñu ngi koy xayma ci Sénégal ci ñeenti ñaari téeméer ak fanweer ak juróom-benn ci mooy téeméeri junni jigéen yu wasin seen doom indi bakkan ñooñu ci ñooñu ñaari téeméer yi ak euh, fanweer ak euh, benn bi euh, loru nañ ci. Mm-hmm. te fi nu bëgg jëm moom mooy fexe ba nga xamee bu mënta ñàkkit mu doon gën gaa bari juróom ñaar fukki jigéen yoo xam ne ñoo ciy lor kon nga xam ni ah, yoon bi pour mën fa yegg sore na sore boo xamee a ah jéego yi ñu ci war a def surtout nag di recruter sage-femme yi ndax comme ne ma la ko waxee ci thème bi dañu fépp fu sage-femme nekk rek ndeyte ndey doom daf fay wàññeeku. Mhm. ci seen wàllub liggéey bëri na lool lu ñu leen di ŋàññ maanaam ci taxawaay wi ni ngeen war a taxawoo ñi nga xamante ne ñoom ñooy kon patient yi ah, ci wàllub accueil bi ak toppatoor gi ci war lu waral ñenn ci seen i naataango ah, ñuy doxalee yëf yi nga xamante ne kon ñu bëri dañ koy ŋàññi comportement yooyu. waaw li ma waxoon ci nasaraan rek nee leen moom fépp fu nu woowee sage-femme wax ji benn la moom mooy journaliste bi moom lu lu mu waxtaan rek il faut que mu laaxaale si mbirum accueil boobu ba xam ba tax na ñun suba suñu xëyee loolu day nekk suñu ëmma naka la ñuy mën a def ba nga xamee ni jafe-jafe boobu dina dina dina dina wàññeeku bu mënta dañ carrément. Mhm. donc ci bépp jotaay bu ñuy am moo xam jotaay bu ñuy toog moo xam jotaay léegi nga xam ne dañuy tuddee virtuel. Mhm. moo xam ci Facebook la moo xam ci WhatsApp la moo xam ci yeneen xale yi yeneen yi ñuy utiliser yëpp dañ fay dugg ah, di di di ñaax suñuy ñoñ. dañuy dem ci biir bu leen di jàngal déjà ci biir école bi balaa ñuy génn ñoom ñëpp dañ leen di ñaax di leen wax ni leen li ñu soxla ci faj bi pour faj bi mucc ayib al faut que euh, euh, pàcc bu nekk ñu mën cee góorgóorlu waaye jamono rek tamit di ñaax suñuy ñooñ dañuy ñaax tamit population parce que il faut population bi xam lan mooy liggéey sage-femme il faut population bi xam mat nan lay demee lan moo tax des fois nit ki nekk ci biir ba nga xamee ne yow doo mën a jot ci moom bu ko defee nga énervé du di xataraay ñii dañoo ñàkk kersa doo leen di laaj duñ la duñ la tontu c'est parce que ah, des fois duñu am sax jotu tont ndax ñu mbirum urgence la ñuy daw ñoo xamee ni dañu ni la ci diirub ñaari waxtu mën nga ci ñàkk bakkanu nit kon loolu mënoo sàggan dara dara dara dara dara fu na fekk da ngay da da ngay mën a daw ba tax na sax mi rafetlu maanaam xeetu wasin yi nga xam ne léegi depuis depuis 2012 euh, ba léegi ñu ngi koy commencé Sénégal muy lu ñuy tuddee accouchement en style libre maanaam di delluwaat ca la maam jàngal daan wasine nga xamee ni léegi ci biir salle d'accouchement yi dañ fay defar place yoo xam ne bu ci coobare nit ki bu dee lu mu tànn la mën na tëdd wasin euh, mën na wetu wasin mën na jonkan wasin te dana fa am ay ay ay ba ay ndës yuñ fa lal yoo xam ne mën na fa mën na faa tëdd am na ay ay ay njoowaan yoo xam ne euh, mën na cee njoowaan ba nga xam ne bu méttit bu ñëwee dina ci balancé wu ma beneen bi ci amaat solo tamit moom mooy day daal di tànn ki nga xam ne mooy ànd ak nga xamee ne bu ñëwee fenn du fa wéet du ñëw rek gis blouse yi kese mu gis ay miir yu weex nga xam ne gisu kenn ku mu mën a liiwal euh, nga xam ne day dégg ñi moroomam yépp di yooxu day day day gën a jànnax lii nag lay daal di def fu nga xam ni sa yaay sa borom kër wala ki nga tànn dina mën a ànd ak yow kooku dina tax sax ba nga xamee ni bi sage-femme bi amul woon jotu taxaw fa ci wax la ci nax kooku dina ci jàpp ba nga xamee ni liggéey bi dana gën a ratax yi dana tax nit ki dina wasin ci xel mu dal dina wasin du jaaxle méttitam dina ko mën a gën a supporter parce bu la ci jàppalee rek mu oyof mm. ba nga xamee ni tamit euh, wasin bi jaar yoon xale bi tamit biy génn dana indi euh, dana ñëw ci jàmm. accouchement ak humanisé boobu indil leen du leen indil gàllankoor ci seen wàllu liggéey. déedéet indiwul benn gàllankoor ma ni la lu nga xamee ni la ah dañu ni sax yéex naa ñëw te ba léegi nag ñu ngi commencé di ko tasaare ci biir réew mi euh, Dakar bu njëkk Gaspard Camara rek la amoon mais léegi ñu ngi koy tasaare ci ci ci ci ci fu bëri parce que gis nañ ni njëriñ li si nekk. Hmm. gis nañ ni que euh, euh, mbirum wasin du warul nekk kese rek yow sage-femme bi day réew di ak yow mi matu papa ji def ci bokk parce que loolu la ñuy tuddee. Euh, naissance d'une famille donc léegi baay day commencer doon baay balaay doom di génn. Hmm. nga xam ne day ànd ak soxnaam mën ko jàpp si métti loolu dina tax tamit mu gën a fonk jabaram xam nan jafe-jafe la jigéen di am balaa muy am doom. Hmm. dana tax tamit jë ndaw si xelam dal. dana tax ñun ñii tamit koo xamee daf mi wóor ni suñu nekkee di toppatoo keneen kii ñu fi bàyyi xelam dina dal du mer du du yuuxu ndax am na koo xam ne xam na ko ku bokk ci famille am ku ànd ak moom di ko jàppale euh, ci mat mm-hmm. yow yaay njiital kuréel gi ëmb sage-femme d'État yi ci Sénégal madame Bigué Bambodj ñu ngi lay gërëm bu baax a baax. ñu ñoo yore ngërëm bi. di la ndokkeel ci seen bis bi. jërëjëf.